asalaamaaleykum mbokk yi sama collègue député yi maa ngi leen di nuyu madame la ministre de santé maa ngi leen nuyu di nuyu sa naatango ministre des finances député ministre du travail di nuyu ñi nga àndal samay kàddu dama bëgg nga jël note parce que gis naa daanaka député yi moom yi fi wax yëpp jëloo note pour noter xam naa ne da ngaa programme sa tontu a tontu pour 20 mille yi la war a may mais noter lii ma lay wax boo ma ci tontoo tontu boo xam dal na sama xel dinaa war si bis ba dëllu sama xel damay wattu tontu parce que foofu bi laa ko Madame la ministre, moi je le député de peuple c'est le candidat de peuple 2024 tey gis naa ni député yi xëy na seen communication xaw na sax dal ñu ngi waxal au moyen peuple bi comme man candidat peuple bi la dina leen remercier seen kàddu tey yi jërë ngeen jëm madame la ministre fi may tàmbalee mooy li nga xam ne moo jëm ci bis 2023 tey li ñu doon xaar si yow nga jox ñu rapport performance 2023 ndax bu fekkoon te na laa nattal bit sa boo xam ni taux de discussion bi 64 pour cent la dafa garaaw pour man loolu waruñu la wax joxaat sax bit seet ndax yow li la joxoon daaw ba fi may wax ak yow bi ñuy indi rapport bi li nga ci bind mooy 64 pour cent ngay jëfandikoo ci xaalis bi ñu la nettoon daaw lan moo waral lool madame la ministre li jëm ci euh, cadre communication yi may gis yëpp 2017 ba fi may wax ak yow maa ngi nekk député mais même communication la député yi wax amuñu ambulance amuñu centre santé amuñu hôpital même communication bi lan mooy problème bi ak lan mooy li nga xamante ni mooy seen programme PSE jëm ci mbirum santé ndax accès 1 bi du priorité si yéen yéen a ngi jël maanaam PSE ci accès 2 bi ci ngeen dugal santé pour man loolu jaaruwul Madame la ministre, question première li jëm ci centre de santé bu Tivaouane ak Linguère bi amoon ay nit yu fa faatu fan ngeen toll ci traité ci traque bi ñuy traqué ñi nga xam ñoo nekkoon responsable deuxième madame la ministre hôpital Seexul Xaddim bu Touba ginnaaw ba ñu ko tabaxee ba fii may wax ak yow am na ci maanaam benn unité boo xamante ni ba léegi fonctionné wul parce que amul matériel madame la ministre troisième détournement yi am maanaam ci ministre la santé jëm ci fonds covid bi fan ngeen si toll parce que dafa am détournement fonds covid boo xamante ni cour de compte moo ko wax 2019 boo xam ne dañoo détourné xaalisu askan fan ngeen toll si loolu madame la ministre boo jëlee lettre numéro 0601 le 6 8 mois 2022 ministre de finances moo ko bind relance budgétaire la concernant numéro 00 95 51 ministre de la santé le 14 juin 2022 ministre de finance tontu ko lettre numéro 04 70 ministre des finances DCP le 21 juin 2021 président de la république amoon accord ak ñi nga xamante ni moo nekkoon contracteurs yi nga xamante ni mooy Euh, waa waa ECP euh, e EPC contracteur yooyu waa EPC madame la ministre ministre des finances génne woon na milliards cent quarante huit millions trente deux mille francs CFA xaalis bi génn ministre des finances verse nañ ko ci keesu ministre de la santé trésor génn na xaalis boobu noonu te contracteur fay ñu fay ñu leen kon loolu détournement la lettre baa ngi nii léegi nag askan wi war nañu xool lettre bi moo nekk nii ministre des finances génn na xaalis huit milliards deux mille vingt deux pour ñu war a fay contracteur IPC yi nga xamante ni maanaam moom moom lañ ko waroon a fay jagleel ko ko xaalis boobu ñoom jotuñu si te xaalis bi génn na trésor fay na ko détournement mooy deuxième détournement ci ministre de la santé fan la xaalis bi dugg. kon jàpp naa ni sénégalais yi dañoo am loo xam ni madame la ministre am nañ ay jafe-jafe santé boo jëlee programme Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké cinq cinq li mu ci wax mooy santé bi moo war a fekk population bi madame la ministre mais population war a fekk santé pour man tey bu ngeen jëloon programme boo xamante ni chaque commune da ngeen fa def centre de santé boo xamante dafay am plateau médical technique yoo xamante yu baax la population ku feebar faju fa kon subaa ngeen amee jafe-jafe monsieur le ministre milliards yi nga xamante ni banque mondiale finance na ko piment xamnaaas boobu toll ak ambulance noonu malheureusement coordination gouvernement moo amul en tout cas ñu lay remercier baax di vous remercier